waaye bu ñu demee ba leen dugal ngeen naan yéen yéen ay organiser pour xeex ak résistants yi xam leen ni yéen a ngi se xottu gerte résistance lañu woote te su ma amoon terme bu gën a fort gatsa gatsa sax dinaa ko utiliser bii paax bu leen kenn gën loo woy ñii ñooy nitu fitna ñi président de la république bu dajale ay nit pale ne leen dem leen préparer pour ay milice xeex ak xale yi waxoo police maintenir l'ordre